bismillaahi rahmaani rahiim li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu jàng faatiha jàng alam nashrah fa mu jeex ñu jàng fàllax yi ak naas yi ñaan yàlla liggéey ñu dugg nañu ko àggale ci alhamdulilahi alamin yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def allahuma bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ginnaaw ba ñu sante yàlla subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalee ak dund ba ñu fekkewaat weeru koor ñu ngi koy ñaan yàlla nañu ko defalaat bi fas yéene tekki téere bi nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindeef yi bari na lañuy ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko bëri na lu ñuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko bëri na lu ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko waaye li ëpp ci julliti léegi téere bii di alxuraan lan ca am mooy jàng baat yi rekk jàll loolu nag su fekkee ne ci lañuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj ndax itam duñu xam lan mooy téere bi lan mooy taxawaayam looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka ba mu fa toxoo dem al saar ya continue di ko fekk foofee juróom-ñett fukki saar ak juróom-benn fekk na ko Makka ñaar fukk juróom-ñett fekk na ko Madina saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoon te waree su koo gëm pas-pas yéeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett saaba yi toxu ak yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firil saxaaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi saxaaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiyallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund ba ñu ca noppee nag doomu aadama jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp tukulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñuy wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii boo wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi ko wéree ci kaw suuf te mooy waxe yàlla ji ñu bëgg koo jële ci làmmiñu yaaram sottandi ko ko ci làmmiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sotti ndi ko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir sii léeg lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral it fëri firi bi lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon lu firim yi bari bari rek damaa dem mel ni mel ndax kenn du gis sa bopp ci firim yi li fekk doo gis sa bopp ci firim yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaak ñaan doog yonent bi rek boo ko defee ngay wax est-ce que yi kay firim ni est-ce que yi kenn ku nekk dem ñibbi ba déwén waaye firim alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bu la yàlla baaxewul bu subaa doo ñëw ndax da wax ne waa ji ah, nangam ak nangam fekk na déedéet tabarkalla noonu la doxe ñun ñoo ngi bokk ci yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci suratu al fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañu teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk lu moom d'accorduñ ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca suratul namli ñu fab ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu des baraa waaye fatiha moomu ko looloo waral lenn ci ulama bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfaatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu it li muy tekki mooy alquran day wax ju sell gën a rëy ci wax yi te doomu aadama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saaga léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baaxul su bëggee jàng alxuraan nag mu ne a'uuzu billahi min shaytaan rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko mooy su dee jàng ci biir seytaane mën na caa jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem moo tax kuy jàng alxuraan ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahir rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar bi nga nekk nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahir rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran di ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab jullit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim lépp la jullit di def na wax bismillahi rahmaani rahim kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def ci waxuñu bismillahi rahmaani rahim barke ba day dañ mbir moomee du am barke te lu waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la ca bëgg moo tax kon bu nit di def menn mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqara ko jëkk wàcc yaa mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yool mu dassire ko jëkk a wàcc nuun wal xalamee ko jëkk wàcc saar yi yépp tabat ya daa ko jëkk wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction bi wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax faatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maanaa yi nekk ci alxuraan da koo ëmbaale mboolem maanaa yi nekk ci alxuraan lépp mi ngi ci alfaatiha usulul diin muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp mi ngi ci alfaatiha te it ñetti xaaj yim def rekk mooy alxuraan te mooy ibaada aqida tashri' loolu mooy alxuraan ibaada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashri am mooy tëralin wi yooyu yëpp faatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg jàngale al iman bi yawmil mooy gëm àllaaxira jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngal na yàlla rek lañu war a wéetal subhanahu wa taala kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku kuy ñaan ku nekk yàlla rekk nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga ko war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siraatal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala te it nga ñaan mu musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci yépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu nit fu baaxul moo tax ñu saar bi ummul kitaab ndey téere bi yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne ubay ibnu kaab moo ko nekk li mu ne sallallahu alayhi dafa jàng faatiha ba mu jeex mu daal di waax wallazi nafsi bi bi ma unzila fi tawraati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim allazi utiituhu mu ne giñ naa ci ki nga xam ne sama roo gii miñ ci loxo tawraat lu mel ni alquran nekku ca lu mel ni fatiha nekku ca injil lu mel ni fatiha nekku ca zabur lu mel ni fatiha nekku ca alquran ji ci boppam lu mel ni fatiha nekku ca mu ne mooy juróom-ñaar ya yàlla ne moom la ma jox ak alquranul karim mooy alquran wa laqad aataynaaka sab'an min al-mathaani wal qur'aan al-aziim min ci biir alquran benn bisit daf benn sahaaba daa taw ci biir jàkk bi mu yàgg mu ne ko Saïd Saïd ne cell fekk da doon julli mu ne ko Saïd Saïd ne cell ci julli gi ba sëlmal ñëw ne ko naam yaa rasulallah mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo mu ne ko ama kay waaye dama doon julli mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonentam wooyee na ngeen wuyu mu ne ko am ah kay mu ne ko sooy julleeti su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu ma dama la bëgg a jàngal tey loo xam ne saar la boo gën a màgg ci alquranul karim di waxtaan bay bëgg dem saaba ba nag defe na yonent ko fàtte mu jàpp ci loo ne ko saar ba laa lay laaj mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha daal di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam kon alfaatiha moomu ci la ñuy dooree insha allah subhanahu wa taala bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na alhamdu cant yépp alhamdu cant yépp lillaahi yàllaa ko moom rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi mbindeef yépp doomu aadama yépp li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom lu tax yàlla tàmbali rek daan ne maamoom cant te maamoom mbindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono jii dees na xëccoog moom mbindeef yi na ne bu ñëwee dina am ñu xëccoog moom mbindeef yi ba bëgg am ndam ba tànk jëm am moom subhanahu wa taala ka ca gën a fës ci jamonoy tey jii mooy Bill Clinton ka gën a ci jamonoy tey jii ci dëkk yàlla na ko Firawna defee woon na ko Namrus defe woon na ko ñeneen defe woon kël ca gën a fes tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi yal na ko yàlla rëbb yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindee fi yàlla arrahmaani mooy kii yërëm waa àdduna si yëpp lu waay dëng-dëng mu yërëm la lu waay dëng-dëng mu yërëm la waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekkul bisket dee ku nekk bis koo dee ku nekk fàq man dee waaye yàlla mooy rahmaani loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi mu commencé segg gaa yi kon arrahman mooy yërëm waa dina si yépp lu waaye jubadi jubadi bokk ca arrahim nag mooy yërëm moom ñeyeyoo yërmande bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërmande wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm yàlla nañ ca boole yàlla maaliki yawmi diin mooy borom bés am na ñuy jàngit maliki mi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maaliki mooy borom bés boo ne maliki mooy buuru bés am na ñuy jàng malki mi diin am na ñuy jàng maliki yawmi diin am na ñuy jàng maliki yawmi diin juróomi jàngi na nga noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis pénc moom moom bis pénc bu yomal xiyaamee moom da ngay toog ci sées ñépp ci suuf la ñuy toog sëriñ seeg yonent yeeg xut bu samaan yeeg wàlli yu yeeg ñépp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñépp ay taxaw moom jalla jalaaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maalik yawmi diin mu diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loo leble woon na la yàlla y fay diin mooy dayn mooy bor kenn ku ne boo ñëwee àdduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari bànk na moo fa nekk banque banque caay-caay ak bànku njub banque njub gi boo fa defee benn dërëm yàlla yokk ca juróom-ñeent muy fukk mu teg fa banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla maandoo mooy malik yow mi di adduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés sama bés bi fonk leel ma ko sama bis bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp tànn ngeen man maay maaliki yawmi diin pourtant moom mooy ma maaliki yawmil usnayni bii de tey maaliki yawmi sulasa maaliki yawmil arja bis yëpp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne damaa moom bis bi mu bàyyi ñu xam ngeen ne fi nekk nii semaine bi yëpp bis bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne man maamu bi ñun fi ne ku ci bis sax daan ne sama bés bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee céet ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm foofu tam mooy gestu lañuy ñuy tuddee gestu li nga doon wax léegi da nga xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm wa iyaaka te yow dong nasta'iinu la ñuy sukkandikoo loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyyaka na'budu te waxoo iyyaka a'budu waxoo ne yàlla yow dong laay jaamu yemale wa sa bopp da nga yow dong la ñuy jaamu wa iyyaka nasta'in yow dong la muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a waaye nag jullit yi bëgguñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na nga ñu teg te saxal ñu asiraata yoon wa almustaqim wu jub yàlla yàlla na ñu teg ci yoon wu jub wa ihdina sirat almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex àdduna da nga dee dee gu sedd da texe dem aljanna muy as-siratul mustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def deux points boo moytuwul da gis ñoo xam ne lañuy ñaan du bokk ak la ñu war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñi naan yàlla nga may ñi naan oto kenn ku ne di ñaan la nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaaya ñu ba ko gën ihdina siraat al mustaqim siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen xayril maxdubi yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala daalliin yàlla yàlla ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi faatiha bi jeex jàng na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama allahu alayhim siraat almaxdubi alayhim ak siraat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu ak yoon ñi sax ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam